mbokk yi ñu ngi am mbégte kontaane bu baax a baax ci ñi ñuy suivre ci Lutte Sénégal ak li nga xam te ne mooy wasaare daane ñu ngi fi nga xam ne mooy arène nationale muy Daniel face to face diggante Siteu ñu ngi jàkkaarloo suñu papa Père Ngagne di kenn ci biir làmb di lu am solo papa maa ngi lay nuyu di la siyaar maa ngi leen di fay di leen nuyu di wax euh, waaleykum salaam hmm. Père làmb ji waa xanaa ñaan yàlla euh, ñu koy gën a jooyanti rek ndax xam nga làmb li ñu daan sëyu xale ak sëfu mbaama yem da ngay jooyanti rek. di gën a defar waaw ñoo yem da dangay jooyanti rek. waaw ñun daal li ñuy ñaan mooy làmb ji gën a defaru. Euh, yaakaar bu ci nit am rek. nga jël ci sa wërsëg. waaw ndax tool la boo xam ne nag kaay ma la ku ne mën nga cee gañe lu ne. waaw ci kaw ñor ñu bañ koo yàq. waaw ji ndax mi ngi avancé wala am na lu nga xam tamit des na. waaw mi ngi avancé. mi ngi avancé ci ni mu ko ni mu ko ni mu ko mëne parce que euh, période yi du benn. man fekke naa fi période yu bëri ça fait plus de xëy na quarante ans maa ngi seetaan lamb euh, kon je pense que euh, état bu ne seetaan naa ko fi ah kon je pense que mi ngi mi ngi mi ngi avancé mi ngi dem solo niñ ko mën a doxale waaye war naa gën a mën a doxee nii waaw war na mën a gën a doxee nii ba euh, ñi koy tëgg mën cee gis seen bopp waaw parce que tool lépp mooy ñu koy tëgg parce que promoteur bu dee bu ñëwee bàyyi mbala bu tëggee benn combat daw mbala bu ñëwee ren du ñëw déwén ah, attention mbër yi mënuñu tëgg seen bopp kon euh, je pense que mi ngi dox actuellement tax fi mu ne nii booy xool li ngeen am ci événementiel bari na surtout ren ji fii ba fin avril defe naa combat yaa ngi taxaw kon je pense que làmb ji mi ngi dox waaw affiche yi nga xam tamit suñu kanam euh, dimanche passé mi ngi génn muy diggante Siteu ak Papa Sow noo ma jàngatale euh, combat bu am solo la woon ci ñoom ñaar bu leen fàtte ni Siteu Papa dañu xaw a bokk jàngoro ci li leen di kale mooy luur yi Siteu dal na ci kaw Sa Thiès jàllul daw ci kaw guy gi jàllul Papa Sow dal na ci kaw lag de Guiers 2 jàllul daw ci kaw Ama Baldé ndax luur la jàllul boobu yàlla defee ñu dajale leen nag xëy na dañ bëgg a départager tey eh, Siteu jël na ndam bi. voilà. ñu bëri ñu ne combat bi mu ndax Siteu amoon na sens euh, ci diggante Papa Sow parce que état bi gis Papa par rapport ak Siteu ni mi ngi màgg bu leen fàttali mi ngi màgg ci làmb ji. Siteu mi ngi mi ngi màgg et puis mi ngi am expérience Siteu mi ngi voyagé. Siteu euh, il est bien encadré. bien vrai que ki mu doon bëreel c'est un professionnel. muy Papa Sow. mbër mu respectueux. mbër mu respectable boo xam ne. Euh, fok nga euh, jox ko cër. man papa 2002 ba léegi maa ngi koy seetaan. seetaan naa ko arène seetaan ko mbapat. seetaan naa ko arène seetaan ko mbapat. géewal naa ko ak bàcce seeraas mbapat Assane Diouf. kon xam naa ko. xam naa qualité am. c'est un gosse très professionnel. moo ay magama fi nekkoon Ousa je pense que xamoon ngeen Ousa son grand frère. ma nga ma nga France waaw France laa ko mujj gis Paris laa laa mujj daje ak boobu. Mhm. Euh, nu mu tudd Papa Sow dafa bokk ci xale yi nga xam ne tey euh, làmb ñeenti mbër ko fi mag. ñoo ko fi xaw ñoo ko fi ñoo ko fi jiitu ñoo ko xaw a jiitu. Bombardier Eumeu Sène Baye Mandione ak Gris Bordeaux kon Papa Sow ci magi làmb la bokk. Mhm. kon euh, remplir na contrat am. Mhm. li mu def ci carrière ci vingt ans trente quatre combats mu mu def ko vingt trois victoire mu am ko kon ku ku ku jaral respecté la. ñëw na remplir contrat am keroog. def na entrant comme niñ ko xamee woon ñëw na entamé bëre bi xëy na euh, dégg na ay consignes yu mu bëree bala xëy na noonu la bëggoon bëreeg si te gis nga fa mu jeexee je pense que remplir na contrat am. kon ñoom ñaar euh, si te Papa li tax euh, nit ñi fonk leen. dañu di xale yoo xam ne ils ont la tête sur les épaules te dañuy réfléchir xale yu xale yu am xel lañu man damay sawar di échanger ak ñoom te damay échanger ak ñoom parfois. waaw mais xale yoo xam ne xam nañu lan nañu bëgg te xam nañu fu ñu bëgg a waaw loolu jàpp ni moom la manqué ci combat bi passé ba tax mu perdre ko ak jële bi ni ko perdre avec la manière. waaw xëy na enchaînement ba rek la te enchaînement ba am na lu koy manqué ci biir. xam enchaînement enchaînement. xam nga combat bi rythme bi boo gisee bi mu songee enchaînement ba ba mu jógee dafa jël tànk tànk ya mu jël gis nga dafa sar booba sar xëy na euh, état ba mu nekkoon euh, mayu ko xëy na mu jël tànk ba mu bëggoon jël loolu tamit am na ci combat bi. erreur la erreur euh, làmb boo juumul doo daanu. dafa juum. dafa juum. mais euh, ndax mbër des fois ak euh, expérience bi ngeen bi nekk ci yow. nga ñëw ñu jox la benn conseil boo xam ne da nga ko war a bëree. te ko xam papa xam ko yor na benn attaque bu nga xam te muy inde. mais ñu gis combat bi mu xaw réservé boppam trop ta di xaar si lu bëree bëri. waaw xam nga ñaare li mu yëg yow xamoo ko moo koy xam. moom mi ci géew bi. mooy xam lan lay yëg. loolu kenn doo ko doo ko mën a blâmer ci loolu. Mm-hmm. mais Siteu wóor na ko ne Papa bi mu yaakaaroon gisu ko keroog. mooy bi muy fecc. Mm-hmm. xam na ne kii nag man mii la. gëm na ne moom moo war a jeexal combat bi. Mm-hmm. Siteu war na ko ne combat bi sama loxo lay jeexee. bi muy def gestion boobu ak bi muy dem à la benn la parce que moom it déglu na ko ba xam ne parce que tamit papa Sow da nga koy déglu da koy liir du mbër mu ñu parax-paraxee surte surte xaal papa Sow li ko ko jaral mu jaral koy avertissement papa aussi mu jaral koy avertissement kon ñoom ñaar dañu respectante ci bëre bi mhm. Siteu dafa respecté Papa Sow Papa Sow respecté Siteu mhm. mais Siteu bi mu xamee ba defee nga xam ne combat bi ci loxoom la war a jeexee da ko jeexal da ko jeexal Papa ah. Sow après bi combat bi jeexee mun na day bàyyi bëre ndax loolu lu jaadu la wala des na ci carrière bi Papa Sow lu ne mën nga ko ko nangul mu yeggali ka mu arrêté carrière lu mu ci décidé rek mm. na ci ni ñi ànd ak moom mm. waaw ndax moo xam lu tax mm-hmm. waaw Siteu le phénomène defati na affaire. waaw waaw defati na affaire. ñu koy félicité bu baax. Mhm. waaw. ëllëgam fan la appar ci làmb ji moom. ëllëgam mi ngi des ci ñu yor carrière am. plan de carrière waaw waaw. mais nga xam ne ñu ci kanamam. bari na bari na te li mu mën a bari na. làmb ji jeex na gars yi di wax diggante ak la de guerre numéro ah, waaw xam nga loolu mi ngi des ci ñu yor plan de carrière am rek. waaw xam nga Siteu. Mhm. Siteu yéen xam naa ne. Euh, xamu leen sax euh, niñ ko tracé carrière am. werante naa ceeg Max Mbargane bés. Uh-huh. ma ne ko doo ko mu ne ma nooy fii lay jaar. <laughs> waaw et puis finalement réussi sax ils ont réussi. Hmm. Hmm. waaw te loolu moo am solo. teg teg plan topp plan bi di topp plan bi ba egg si. waaw egg na si tableau bi mi ngi ñëw ñëw na. Uh-huh. mi ngi màgg ci làmb ji. te mbër yi xam ne mi ngi màgg. Euh, egg na ci li nga xam te mooy ci loo bi mais tamit ndax jaadu tamit euh, mu am changement ci lu bari bëri ci wàllu état bi wala boog ci wàllu doole ji yokkaat li nga xam te mooy masse bi par rapport ak ñi mu war a affronter après doole mm-hmm. xam nga bu mu yàkkamti force am mm-hmm. na ko liggéey rek naturelement mm-hmm. waaw na ko liggéey naturellement xam naa ne euh, xale la boo xam ne lu mu gën a yàgg ci làmb ji dina dem ba aguerri ci force parce que bul fàtte ne Siteu compétiteur la. day jóge fii di dem ci MMA bi. Mhm. yooyu yëpp ci expérience da koy da koy yokk. Mhm. Euh, pour bëgg a xëy toll ni gars yi. non bu mu ko dal. waaw na liggéey ndànk te dem. xam nga euh, il a temps. Mhm. il a le temps xoolal ci kaw ñi ci kaw yëpp léegi ñu ci bari léegi ñu jeexal. Ah, <laughs> léegi ñu jeexal waaw na liggéey li mu war a liggéey. temps bi mi ngi ci kanamam. combat bu ne. bokkul ak ni ñu ko war a aborder te je pense que ñu ko encadré euh, xam nañu loolu loolu daal laay wax mais xam nga dal la ci kaw non non attends du noonu plan de carrière dafa am dafa am dafa jóge ni ci Papa Sow ay combat yi ñu ngi ci kanam on va loolu nañu nañu na nañu nañu nañu nañu kii ce qui est sûr moom euh, góoma góoma ngeen dégg ci làmmiñam mu tudd mbër góoma ko ndax je pense que am na ñu mu ci war a waxtaanal pour xam plan carrière fan la war a jaar fan la war a teg tànkam ak euh, pour egg egg ci kaw la boog mu dégg daal ak lu mu war a moytu dëgg ndànk rek boo dëggee ndànk yëgg fi nga jëm waaw moytu fi nga jëm mooy mbër du la tee uh-huh. waaw mbër du la tee lëlu nangu entraînement c'est des professionnels mm-hmm. ku sax xam na ne làmb moo koy taral xam na ne ci làmb lay liggéeyee uh-huh. ni ni may xëyee di dem liggéeyi loolu lay xëyee di dem liggéey di wàcc di entraîner xam na ko te xam naa ne dara jaralu ko yàqal ko carrière am dara jarulu ko ko il est professionnel euh, li ñu koy conseillé rek comme comme doom comme jarbaat mooy dëgg ndànk du la tey yëgg fi nga jëm waaw te it xam na li def il la tête sur les épaules il communique bien et puis euh, li ma gën a neex ci Siteu mooy du waxal boppam il parle toujours euh, ak jeunesse bi nañu jàppale jeunesse bi. Mhm. mais loolu état bi nañ ko nañ ko nañ ko nañu li xale bi bëgg a wax. Mhm. nañ ko xool lan la bëgg a wax. lu tax mu mu ne bu saa saa yu amee ndam. man mbër yi mbër yi ma gis yëpp. Mhm. bu ñu amee ndam dañuy sant rek. maa ngi sant diw rek maa ngi sant diw. seul site mooy daan xelam dem ci xale yi pour ñu jàppale leen loolu nag communication boobu. état bi war nañu wax ak moom laaj ko lan lu xew. Euh, décorti euh, euh, décrypter li mu bëgg a wax. jàppale xale yi. xëy na moom am na solution yu ñu jàppale xale yi. ata parce que toujours mais ndam dafa neex. mais moom bu paree fàttali na boppam. loolu mooy force ci jeunesse bi banlieue bi lan la bëgg a wax. ñu fexe xam lu mu bëgg a wax. mooy wax ji. d'accord bëgg naa ci yow merci <laughs> jërë ngeen jëf gars yi merci beaucoup